partagé partagé les combattants les combattants mu yaatu mu yaatu mu yaatu mu yaatu amuñu jotaay amuñu toog amuñu xaar na yaatu ñu partagé ko rapidement on fait vite na gaaw na gaaw na gaaw na gaaw amul saral amul xaar na tàkk na Sénégal gépp tàkk Sénégal gépp tàkk yéen ñi doon xaar léegi li ngeen doon xaar am na Macky Sall nee na Ousmane Sonko lay dem tëddi kaso jël na Ousmane Sonko woo na Maham Diallo bi mu joxoon dossier Adji Sarr na ko daanal usman Sonko Maham Diallo daan Ousmane Sonko joxaat na dossier bi Maham Diallo Maham Diallo bi yoon nee na mooy yóbbu usman Sonko kaso Macky Sall moo ko ko wax na partagé woo mu yaatu yéen diaspora bi yéen ñëpp jóg leen génn leen financé leen le combat dem ci ambassade yi consulat yi na lépp tàkk ambassade yi consulat yi nekk ci Sénégal ci diaspora bi na lépp tàkk na Sénégal gépp tàkk amatul lu ñuy xaar Ousmane Sonko du tëddi kaso jog leen yéen ñëpp ngeen tasaare lii ngeen jog ñu xeex yéen combattant yi nekk terrain bi on fait cap vers le centre ville na Sénégal gépp tàkk oto yi nañu tàkk fait exploser tous ces pays na oto yëpp tàkk bàyyi leen de yërëm yërëmtalu de bëtt ay pëna doyul na oto yi tàkk na magasin yi tàkk na station yi tàkk na sar tàkk na faire exploser tout na Sénégal gépp exploser ba àdduna bi yëpp xam li xew ça suffit maintenant yërëm yërëmtalu doy na Macky Sall gis ngeen faale wuñu lu ñu mën a def ci réew mi faale wuñu yoonam nekku ci parce que dañ ko jox ay garantie lan la ñuy xaar na Sénégal gépp fen dugg leen ci kër yi dëgg seen ndey ñun ñëpp benn par seen kër yi ak képp ku si tudd Macky Sall nañu wax dafa jot nag léegi jóg na dëkk bi tàkk na dëkk bi boy laa wax nañu dëgg seen ndey ñëpp daqaar seen i tuuni ñëpp doomi xaraan yi ñu doon Macky Sall dañuy fontoo na Sénégal tàkk na nañu dem jàpp Macky Sall dëggal ndeyam Marième Faye Sall seen dëjjëw ndey ñoom ñëpp na ñëpp jóg ça suffit maintenant ba dégg ku fi wax naan diwóogi saaga léegi yéen ñëpp la ñuy saaga seen ndey léegi na ñëpp jóg amatul toog ñi doon toog léegi lu ngeen di xaar lan la nit ñi di xaar ñi toogoon léegi léegi lan ngeen di xaar da di toog bàyyi Macky Sall muy jàpp tëj na Sénégal gépp boy amatul seetlu gëmm leen di dóor ñoom ñoo waxoon gëmm dóor ñoom ñi ngi gëmm di dóor du ngeen gëmm nday di dóor yéen tamit keskiya ce gëmm leen di dóor oto yi nag takk camion yi amul ay bënd pënë sotte essence mu takk jóg leen jóg leen ñu Dakar ndeyu ñii ay góor jigéen lañu naka lañ bëgg a toogee bàyyi leen ñu def lu leen neex jóg leen Ousmane Sonko du dugg kaso nañu Dakar seen ndey ñoom ñëpp benn par benn ñu génn ñoo leen gën a wëyu fuuf bu fi kenn di jooy ak di layam layam soxla wu ma fi ku ku fi bëtt ay bëdd jooy ma daqaar sa ndey nga génn fii ok kuy xeex laa soxla man soxla wuma ay kuy bëtt ay bëdd jooy kuy layam layam soxla wu ma ko jóg leen jóg leen na Sénégal gépp jóg dugg leen ci kër yi ñu nangoo jóg ngeen taal ndayu seen kër yi ñu toog seen kër yi du ñu génn dugg leen seen kër taal ndayu kër yi na lépp tàkk laa wax ñëpp ci mbedd yi ñëpp dee wala ñëpp dund dugg leen ci kër yi taal ndayu kër yi dajji magasin yi taal ndayu magasin yëpp oto yi ngeen taal ndayam na lépp tàkk amul ku ci bokk ku ci bokkul na lépp tàkk ndayam xanaa du ngeen dégg na fépp tàkk amatul ay léegi ñoom ñoo ñu jàngal di gëmm dóor dañuy gëmm di door seen ndey ku ci bokk ku ci bokkul ku xeexa ku xeexul dañuy dëggal seen ndey yéen ñëpp na senegal tàkk ñëpp ñàkk doomeraam ngeen ku fi taxaw naan imaam a gi saaga kii naa daqal sa job ndey voilà yow mi ma koy wax sa job ndey defoo dara toog naa ne imam imam léegi dañuy saaga ndey ñëpp ku ma fi wax ku mu ci mën doon dinaa daqaar sa job ndey xulli ko ba mu def laay def roqoo ci tamaate tamaate njamba laa ciy def doobee xaraam yi ngeen doon toog di joxe ay leçon de bonne morale wuy saaga baaxul wuy bul saaga bul lii kërëb kërëb mais bu ñuy rey ndey nit ñi bu ñuy dénk maam def ay yëfu doomeraam doo jóg xeex voilà mais toog di joxe ay leçon de morale ça suffit maintenant imaam day saaga abu kamane ke teyaata daaray kocc jamonoy tey ba ñu demee ci armée yi di suul xaw ma ku ñu doon suul xaw ma lu ñu doon wax di ko fonta ba mu sësee imaam abu kamane daf ne ku fi waxati ma dëgg ndeyam ci imaam ci armée la taxaw ku fi waxati ma toccootu ndeyam abu kamane te imaam la dafa sës parce que dafa am loo xam ne su amee rek li wërta am am li wërta am su amee leneen lu wërta am day am lu ci nekk rek li koy sabab mooy am am bi muy am saaga gën lu ñu bëgguñu di saaga mais réew mi ñëpp mën a saaga dañuy joxe suñu xalaat suñu xam-xam ak suñu ay idée ba mu sës di ko wax ak ay nit jàpp na ay nit lañ mais bu fekkante ne ñi ngay waxal da ngay dem ba xam ne ñii duñu ay nit ay bàyyi ma lañ da nga leen di jaay jikko bàyyi ma mooy toj seen job ndey seen copparatu ndey bi ngay dagg dégg nga maam seel ko comme ni ñuy defee seel na ñëpp jóg bu ma fi kenn wax ay waxi Maham Diallo problème bi du Maham Diallo arrêté c'est Macky Sall mom la wara deug ndayam mom Macky Sall dem sulu ndayam indi ko jutal ko jox ko Macky Sall nako ko sa koy bi ci sa tuuru nday jóg len jóg leen ñu xeex intensifier le combat na lépp takk bëggatuma ay pneu yu ñuy bëtt ay oto yuy takk la bëgg ay citerne yuy exploser magasin yuy takk marché Kermel takk marché HLM takk na fépp dëgg ndeyam exploser est-ce que c'est clair mu dégg ko fi wax naan diwloo ngi saaga doomeraam yi li ngeen di def moo yées saaga ay bokkaalekatu yàlla ngeen ay lekk lekkatu riba ay seen bëj jëw ndey yéen waan di dundal ngeen di def du ngeen xeex du ngeen bàyyi kenn xeex kuy saaga ngeen ko jaay moral di ko jaay diina te gëmu leen cattu ndeyam tous gëmu leen ko ay doomeraam ngeen ñi may waxal mooy ñun ñun du ñu xeex te toog nag dàq fee joxe ah diwa ngi saaga diwa ngi saaga Sénégal ku mënta saaga doomee xaraam yi yéen ñëpp a mën a saaga ku fi juddu saaga ndey lañ la ngénte doomee xaraam yi ñi dañ koy bañ a def ñii xam nga di ko def mais ñëpp a yem Macky Sall li muy def moo raw saaga te kenn waxu ci li muy lii Macky Sall nekk ci réew mi moo raw saaga te doomeraam yéen a ngi du ko wax Oui, allô un instant un instant télévision yi nekk ci réew mi dëgg leen ndey télé yëpp ay TFM kii ay 2STV kat leen ndeyu télé yëpp antenne bu benn télé amérati ay 7TV kii ay may mën a ndur fay dëgg leen seen ndey ñun ñëpp benn par benn lan ngeen di xaar Sandaga nan dëgg ndeyam tàkk marché Kelmel mooy marché tubaab bi dëgg ndeyu marché Kelmel na tàkk tubaab yi ko moom fa la ngeen duggee seen dugg ngeen toj cottu ndeyi marché Kermel mu explosé lan ngeen di xaar yéen ñi nekk ci région yi lu ngeen di xaar Kolda Sédhiou Louga lu ngeen di xaar Ousmane Sonko Macky Sall nee bi def ko ci kaso bi lan ngeen di xaar ana waa Saint-Louis Louga Tivaouane Thiès Pikine Guédiawaye makki Sall léegi la joxe ndigal juge bi nee na Ousmane Sonko mandat de dépôt mooy demal tëdd ci kaso bi rëbës lañ koy yóbbu lan ngeen di xaar mu dee da ngeen mu dee damay laaj. diaspora bi dañu jóg consulat yëpp nañu toccatu ndey consulat yëpp ambassade yëpp nañu dëgg ndey lépp mbaaw Rufisque aéroport jam aéroport Ndiass dem leen ngeen dëgg nday avion yi aéroport bu fa avion wàcc dem leen ci port bi ngeen fa exploser soufre bi fa nekk essence mband yi xandi mband yi essence yi nekk ci port bi ngeen dëgg nday lépp yéen waa mbaaw am na benn kani benn canal boo xam na foofu la gasoil bi di jaar foofu la fuir bi di jaar pour dem saar ngeen taal almet kos ko ci mu exploser tout yi jaar mbaaw jëm ci saar bi jóge ci port bi katt leen ndeyam teg ci explosion mu explosé bëm yow mi naan déet waay xar ma jàmb sama daqaar ji ko ci sa tuunu ndey nga naan déet waay doomi xaram réservoir essence total yi nekk yi nekk yi nekk yaraax yaraax réservoir essence total yooyu du ngeen dem exploser ndeyam teel ah amul nelaw amul lekk amul dell ginnaaw suñu bakkan la ñuy jaay Macky Sall dañuy dakaar ndeyam tey jàpp ko tey man maa leen ko dañ ko jàpp tey time ndeyam moom Macky Sall tey daañu ko gën a xoo ko war ay boori temps lañu daañu toj job ndeyam bu fekkee ndeyam am na job dañ koy toj tey moom ak Marème Faye Sall ak Oumou Diallo daañu daqaar seen lëfal ndey ñoom ñooñ doomeraam yooyu boog ñu paree ci ñoom na jublu ci ay maaxam Diallo ki ay ñoom Antoine Diome ci Macky la Macky mooy mooy cible principal bi ak ay njabootam bu ñu génn réew mi bu amul daw